wa yaxfiru lxataaati illa huwa wa yasturu lxawraati wa yaksifu lkarbaati wa yaxsifu lxaafaati wa yadalu talabaati siwaahu moom subhaanahu wa taala fa huwa axaqu man dhukira wa axaqu man shukira wa axaqu man ubida wa axaqu man xamida wa anzarahu man ittaqa wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala waaleykum salaam sëriñ Thierno Kane nuyu naa la ñu ngi lay béggee tabaarakallaahu di la savo di la nuyu dina ñaanal yàlla jàmm ñaan yàlla yàlla defal la jàmm bi jaahi rasulullahi amiin sallallahu alayhi wa sallam comme jéggul nga ñu rek ci heure bi wallaahi tabaarakallaahu daa mat sëkk nag suñu coobare waaye yenn yi rek tabaarakallaahu jafe-jafe taxawee ni mu toll tabaarakallaahu ñu nuyu la nuyu aja astum yi ñi bokk ak mbir mi tabaarakallaahu mm-hmm. soxna Mereem ak ñëpp. Mm-hmm. ñaan yàlla yàlla na yàlla barkeel seen mbir mi jaay rasulullah. Oustaz di kontaan baax a baax ci sa sañse bii waaw jërëjëf bi nga dugg see laa wax Oustaz sañse nga. jërëjëf sëñ Mbacke jaune nga daal di def. sëñ Mbacke macha allah fi mu jaar ci yow baax na de. waaw sëñ sëñ sëñ sëñ Mbacke Ndiaye yàlla ah. yàlla defal jàmm. moom xam moom yi rek yi ah, ak yeneen ak yeneen. <laughs> Oustaz yàlla sa jàmm yàgg. amiin alors aujourd'hui itamit gën nañoo gis ki nga xamante ne moom mooy Adja Astou mais aujourd'hui vous l'aurez bien sûr devant les écrans mhm. tey jii tamit dinañu daal di jukkil li nga xamante ne moom mooy question internet yi comme ni mu ko bari di defee. Mhm. itamit waaye tey jii dafa am thème bu am solo bi nga xamante ne dañ koo daal di euh, indi. dafa daal di méngook ak tey jii muy aljuma comme gars yi dañu wax aljuma mubaarak waaye tamit ñu xam ne lu ci gën a bari ay tiis ak i naqar dal na fii ci simim réew ay nit ñu fi wàññeeku waaye ñu ngi leen di ñaanal jàmm ci famille bu ñuy dawoo ak ci famille bi ñu nekk saa su yi tamit fi ñu nekk gënal leen fi ñu jóge ndax adduniyaa fii kenn dëkku fi yaw saz dañoo ñëw dong ngir ut nan la ñuy taxawee fële nga xamante ne moom mooy bi bisu penc ci kanamu yonent kanamu euh, allah subhanahu wa taala ba mu yërum ñu dugal ñu aljanna kon nag moom mii nga xamante ne moom mooy moom mi di euh, soxna ci euh, Bougane Gueye dani di itamit mag ci Wally Balago Seck yàlla na ko yàlla xare àjjana donc ñu koy ñaanal umma islam bi yëpp ca loola duñ ci daal di mujjee tey ji thème bi nga xamante ne moom la ñu daal di indi muy jikko yu rafet jikko yu rafet buñ ko daal di àddoo lu a bari bari na nag bari na ay buntu yoo xamante ne mën nañ cee dugg waaye balaa ma cee xus tuuti damay bàyyi oustaz ñëw ci waaye laata loola am na numéro bi nga xamante ni tamit dana daal di affiché léegi muy numéro serveur vocal ba mën ngeen ñëwoo au 88 628 02 02 ngeen dimbaliñ ci te rek bu fekkee am na appel ngeen dugal ñu ko yaa oustaz mbir maa ngi noonu. thème baa ngi noonu. bi maanaam xasanul axlaaq aw xusnul axlaaq rafet jukko tey nag thème bi ñu indi kan mooy laytaayu tem ci lislaam tem boo mën a indi bii mooy lu koy jagal rafet jukko thème bii ma indi kan tey mooy lislaam thème bii kan mooy jëmm doomu aadama bu baaxee ci doomu aadama léppay baax thème bi thème bii ñëw mooy fondement l'islam luxman euh, alxakim yi dafa waxoon ne li kulli bunyaani asaasa wal asaasul islam huwa la husnul axlaaq dafa waxoon ne lépp loo gis am na fondement waaye fondement islam mun na rafet jikko la rafet jikko kan mooy fondement islam thème bi nag tabaarakallaahu yaatu na yaatu na lool sax mën leen doxal nag tabaarakallaahu di ko def at du tax mu jeex mën nga cee dox semaine mois at te du tax mu jeex ndax li mu làmbug moo bëri muy thème bi nga xam tabaarakallaahu moom nañu waxtaanee léegi nii muy rafet jikko nee naa la nag moo ëmb lépp ndax Luqmaan daf ne li kulli bunyaanin asaasa lépp loo gis dafa am fondement waaye wa asaasul islaam xasnul oqlaax wala xusnul xalaax ne na xoolal lépp loo gis dafa am fondement fondement islam nag mooy rafet jukk mu waxaat ne treize jours yi Luqmaan waxaat ne treize jours yëpp treize jours bi ci gën a kawe te ëpp ci ngëneel mooy rafet jikko mu ne kanzul arzaq husnul xalq trésor yu wërsëg yi lay yàlla di wërsëg bàyyi xel ne mooy rafet jikko kon nag rafet jikko tabaarakallahu lu rëy rëy la mooy loo xam ne nag boo ci saxee yàlla bëgg la yontu yàlla Muhammad bëgg la parce que njol bàkk moo ne képp ku bëgg yàlla bëgg la yonent bi bëgg la sa jikko day rafet li cooli di bëri bëri yow bi maanaam sa jikko day rafet alaamatu hubbullaahi wa rasuluhu fa man iddaa mahabbatullaahi wa rasuluhu fa alayhi husnul xalqi njol màkk nee na mandarga yi bëgg yàlla ak bëgg yuntu yàlla Muhammad mu ngi ci rafet jikko moo tax njol màkk daan na toog moom rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam naan ko yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma musal ci ñaaw jukk allahumma inni a'udhu bika min makaratil axlaaqi wal a'maali wal ahwaa'i wal adwaa'i yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma musal ci ñaaw jukk ak jukk yi ñu sib jukk yi bon yàlla yàgg ma ci musal yàlla nga yàlla nga ma ci musal waaye allahuma ihdini ahsanul axlaaq waaye nag yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma gindi teg ma ci jukk yi rafet yi kon jukk yi rafet lu mu làmboo ci ngëneel bëri na te nag mooy lay taay lépp lu dem ba njool màkk dem taxaw di ko ñaan nan ko yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma musal ci ñaaw jukk yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma gindi teg ma ci rafet jukk te moom njol màkk amul jukk bu tas nag mhm. ndax xam ne dënd ba hë an duuna duuni mhm. dindi lépp lu ne ci biir lépp lu ne ci xol bi añaa nag soxor gi ci at yëpp tabarakallahu njol màkk dindi na ko rafet jukko googu nag ñuy waxtaanee wa usul xalqi wasiyatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mhm. njol màkk daan na toog sahaaba yi toog mu ne maa ngi leen di dénk saxaaba yi na ko yow la ñuy dégg yow rek la ñuy déglu mu ne maa ngi leen di dé dénk ñenn rafet njol màkk dafa wax ne lati kasiran maa yuwas bihi asaabu ridwanlaahu alayhi ajmahin njol màkk lu bëri di diggal rafet am na xadis boo xam ne dafa toog ne ittaqullaha ragal leen yàlla ay sima kuntum wa atmau siyaati xasanati tawaha wa xalqu naasi bi xulqin xasana gis nga jikko ji rafet tabarakallahu ak fi ko yàlla teg waaye fi ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam teg moo tax tabaarakallaahu Muaz ibnu Jaabir dafa wax ne damaa bëgg a tukki ba ma bëggee tukki nag ma ñëw ba ci yontu yàlla Muhammad ne ko rasulullahi aw si nii njol màkk dénk ma njol màkk ne ko ibudullaha wala tushriku bihi shay'an maa ngi lay dénk daal nga jaamu yàlla te bu ko bokkaaleeg dara mu ne ko njol màkk yaa rasulullahi zid nii dolli ma njol màkk ne ko ah yàq sunu xulqika ak nga rafetal sa jukk mu ne ba mu yàgg mu ne ko rafetal jukko sax mooy lay taayu mbir mi boo ci doxee rek tabaarakallaahu dootuñ taxaw naan la sa lii baaxul sa lii baaxul sa lii dafa bon sa lii dafa bon fi nekk rafet jukko mu ngi ci yow sa lépp day baax waaye kan yal nañu yàlla dimbali ñu rafet sunu jukkoy rafet amiin ku ne aljana la bëgg a dem la ñuy ñaan njol màkk nee na rafet jukko day dem ba woorlul la aljana sa jukko bu rafetee yedd mënul abdi duqulul janna dafay dem ba woorlul doomu aadama bi dëgg-dëgg dugg aljan saahibul xulq buñ ne rafet jukko nag tabaarakallaahu yii mooy ne ci yow mandargay alaamatul xosnul xulqi kan mandargay ragal ragal mandargay rafet jukko bokk na ci mooy isdaqu isa haddastum booy wax lu wax ji neex-neex dëgg ngay wax booy wax li cooli bëri bëri dëgg ngay wax booy wax ki ngay wax ak li poste bi poste poste dëgg li poste bi fees fees dëgg ngay wax mais am na ñoo xam ne bu ñu jàkkaarloo ku poosam fees du ñu ko wax dëgg mukkat ah déet am na ñoo xam nag wax dëgg fa yàlla ñoom jàpp ne ne ku poosam fees warul dégg dëgg pourtant day ñu war nañoo dégg dëgg waaye dañ koo ñeme wut wax dëgg dëgg liy farata ji nag mooy bul xool muunin bi ne ci poos bi mhm. xoolal dëgg ji ci boppam nga di ko ko wax mhm. Mhm. lu jar a bàyyi xel la. booy booy wax daal wax ji lu mu rëy rëy ne nekk dëgg. wax ju ñàkk dëkk dëgg moom jullit war a ko def mu. kon nag tabaarakallaahu isdaqu isa addastum njol màkk nee na benn ngi noonu. wa aw fu isa aattum boo kóllëreeg nit nga matal ko. matal kóllëre réew mi nag moom néew ne firnde mii ñuy matal kóllëre. ku àndal nit moom 2023 bàyyi xel ne 2024 mu ngi bëgg a tàqali koog moom jaar nii. day ah déet. parce que am na ñu àndoon deux mille vingt deux. Mhm. deux mille vingt trois ànduñu. Mhm. am na ñu àndoon deux mille vingt trois deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre fas yéene ñu ànd. waaw loolu kóllëre la. loolu nag ñàkk sàmm kóllëre la. Mhm. sa jukk ju rafet bu nekkee ci yow wa awfu bil ahd da ngay matal kóllëre parce que yàlla waxoon nañu ne wa awfu bil ahd inna al ahda kaana mas'uula. deel matal kóllëre. parce que kóllëre ëllëg yowmal xiyaam dama koy laaj. ndax waaw aw fu isaa'atum ndax sàmmonte nag moom waaw waaye tamit nag wa addu ida ahmantum nit ki boo ko diggee ba mu am yaakaar kan mhm. jox ko maanaam digg nit te ko def waaw jox ko waaye tas yaakaar gi moo fees delli ci réew mi ndax yaakaaroon ni par exemple wax lu dul am jee fees delli ci réew mi kan mais tey nit mën nga ko par exemple mën nga koo dig dara fekk li mhm. ngay xaar yegg seegul d'accord loolu dëgg la loolu moom kenn du ko werante ko moom yow mi koy def sax waroo taxaw xelaat ci lenn waaye ñi nga xam ne man ñi may wax ak mooy ñi nga xam ne dañuy digg nit te pare wuñ pour jox ko. tas yaakaar gi kan kan am na ñu ñeme yàlla. wallaahi. billaahi daa am ñu ñeme yàlla. wallaahi alazim. neuf heures rek di ma gis neuf heures. neuf heures muy yegg. ba pare di la waatal waat yoo xam ne oustaz. billaahi neuf heures mën na ñëwaat ñëwati ñëwati te doo ko gis doo ko dégg. kon nag nit ki boo ko waxee ba mu am yaakaar nga jox ko waafusu tamit furuujakum bokk na ci alaamatul usnul xulqi mooy góor mu sàmm piyim jigéen sàmm piyim ba kenn bu mu ci def lu xar lu lu lu lu lu yàlla. mooy ñu téye seeni bopp. mooy ñu téye seeni i bopp génn ci njaaloo gu bari gi. njaaloo mm-hmm. njaaloo gi dafa bëri lool kan. surtout jamono ji oustaz. surtout jamono ji waaw njaalo bi na parce que njol màkka alayhi salaatu dañ ko laaj rasulullahi lan moo ëpp ci luy dugal doomu aadama aljana lan moo ëpp waxul nit ne aksaru ma yadxulu naas lañ ko wax lan moo ëpp njol màkk luy digal luy yóbbu doomu aadama aljana njol màkk ne ittaqullaha wa xasnul xulqi ragal yàlla ak rafet jukku mhm. ragal yàlla ak rafet jikko mooy ëpp lu muy yóbbu doomu aadama aljana dégg nga wax mhm. maanaam rasulullah sallallahu alayhi wa mhm. dafa toog saxaaba ko ne ko njol mbàkk ñoo ngi lay laaj mhm. aksaru ma yadxulu naasal aljanna ñoo ngi lay laaj daal lan moo ëpp luy yóbbu nit ñi aljana waxul jullit yi nit ñi lan moo ëpp luy orienté nit ñi rombale leen safara yóbbu leen aljana njol mbàkk ne ittaqullaha wa xasnul xulqi ragal yàlla ak rafet jukku moo ëpp luy yóbbu doomu aadama aljana ñu ne ko waa léegi njol màkk ñoo ngi lay laaj ak sarama yi doxulu naas an naar njol màkk ñoo ngi lay laaj lan mooy orienté doomu aadama bu dugal ko safara yonent yàlla Muhammad ne leen sallallahu alayhi wa sallam xaala famm wal farju gémmiñ bii mm-hmm. mooy orienté ñu bëree bëri mm-hmm. yóbbu leen safara rendez-vous yi ngay joxe te dooko ko matal wax lu dul dëgg jiw ñàkk kerse tas yaakaar te am na njo njol màkk waxoon ne ne alaamatul munafiq salaasa ida addada kadaba wa ida tumina kaana boo boo waxee nit mu wóor la nga war ko ok tabaarakallaa bu weesuwul nag nga jox nit tabaarakallaa rendez-vous ba pare bañ koo jox bañ koo kii boo déwalee nit ba pare axlafa wuute fa te naafiq baaxul. mais kon léegi nag xoolal njool màkk ne kan baal ma njool màkk ne fam mu wal farjo dégg ni mu ko tegalee. Mhm. nee na alfam mu gimiñ. Mhm. wal farjo ak pii mooy njaalo bi ma doon wax sànq. Mhm. nee na li ëpp luy yóbbu jullit safara mooy làmmiñ ak piim mooy bii ak sa awra. njool màkk nee na ñaar yii mooy ëpp lu muy yóbbu nit ñi safara. waaye yal nañ ci yàlla musal amiin yàlla moo tax ñaari ku yaay nag tabaarakallaahu teer ko orienté moo tax rasulullah yi nag wa'fusu furujakum waqaddu absaarakum ñool màkk ne la tamit waqaddu absaarakum mooy nga fekk say bët bañ di xool jigéen ji rek jigéen ju romb nga xool jigéen ju gis xool yow amoo frontière ci xool ndaw su ne nga ne da xool jël sa wàll baaxul jigéen nag dafa xaraam ñooy ñooy provoqué góor ñi mais dafa xaraam kan benn xol la Sora may nii rek tourné nii waaye nii rek naan maa ci benn xol bi. waaye nan nii bu xoolee ba xam kenn xol la nga fixé waat am na ñoo xam ne grand place la toog lenn rek la ñuy xaar mooy xale bu jigéen bu traversé. ñu ne ci moom ñu teg ko bët nii nag nii nii comme que ne ci télé nag jàpp nan nii di xool. am na ñuy wax ne bu bu dab ko jox ko 1000 francs de ndax. mais kan loolu dafa xaram. waaw mais oustaz mais nag est-ce que xam nga tey mais mais oustaz tey ñi yëguloo ne oustaz may ma tuuti tey nit ñi xam nga lu tax genre mënuñoo daw yenn fitna duniyaa yi mhm. ndax xale jigéen ñoo koy exposé de façon très très maanaam dafa yomb ba mu ëpp yaa oustaz loo daw daw daw daw daw dafiy ne waxoon naa ko fii benn thème neewoon naa ne julli bi jigéen ñi ci boppam képp ku ci sol lu bon ba góor xool ko teg ci bëtam bàkkaar boobu mu ci am bu amee cinquante da ngay am cent bu amee cent nga am cent cinquante parce que yaa sol loo xam ne moom moo ci teg bëtam di ko xool cinquante sax laa la wax waaye bu amee vingt nga am cent te nag ñaata góor ngay romb ñu mën da cee xool rek teg biñ ciy teg seen bët bàkkaar yooyu déranger la ci yow. waa mais yow nga nga xool rek. dëpp daal mais lu mais loolu dara. mais mais boo ni nii rek tourné. dañ cee dañ cee yem dañ cee yem nii. tourné waat bakkar du ci am waaye nag boo nii yem ci fixé bàkkaar a ngi am. waaye nag rawatina am na ñoo xam ne duñ dem sax ñoom ba yem ci waaye dañuy jéem a dem di wax ak ndaw si. waa mais loolu sëy mën na ci am. waaw du ma weddi ne mën na ci am. Mm, waaye kan yu ci bëri bëri bëri bëri caaxaan la. Ah, ah bokk na ci benn. Mm-hmm. yëguloo ne ne fii di bànneexu ci ku jigéen dafa xaram waxoon nga ko fi de oustaz loolu juróon na fi coow de waaw bànneexu ci kàddu ndaw si dafa xaram communication communication laal ligne <laughs> dugg ko vingt heures ba zéro heure am na ñoo xam ne dañuy wax téléphone ba quatre heures du matin cinq heures du matin te ku ñuy wax ak lewu leen dafa xaram daa xaram baax na oustaz loolu dafa xaram sa communication bi boo ko bëggee tere fii dana dafa xalaat te nag kaay ma wax la boobu dafa am bàkkaar boppam nga dugg ligne woo ndaw si une heure du matin ba quatre heures du matin dafa am bàkkaar boppam maanaam rek di woote nga laal connexion nag def appel vidéo bàkkaar yi gën a rëy bët yi day am bàkkaar nopp bi am bàkkaar bépp cër nag bu réagir bu réagir ci appel vidéo bi am bàkkaar cër bu mën a réagir nag bàkkaar yi gën a bëri. kon nag wa talaazadu bi kàllaami xaar xarama wa da ngay firi xaraam na. mais waa xaraam na. d'accord oustaz talaazadu bi kàllaami xaar di bànneeku ci waxu ndaw si. kan nañ waxante dëgg. oustaz ndaw soo ndax déglu ma. oustaz technologie dafa avancé. ndaw soo nekk ak oustaz une heure du matin ba quatre heures du di wax ak moom téléphone yaa ngi bànneeku ci ndaw si. di wax nag di wax man man wax yooyu jaaxal na ma quoi. dañuy dem ba laaj loo tëddeeg loo sol ak loo nag yooyu yëpp caaxaan. ay waxtaan la ay caaxaan la du waxtaanu leen du waxtaanu dara wa talaabudu bi kalaamiha kon nag xaraam na ngay bànneeku ci wax ndaw ci kon nag wax fa suuf ko njol màkk ne ne seen pays. oustaz kon nañ ko wut. kon ñun ko góor ñi kon ñu réer bari góor ñi góor ñi célibataire nañu raxas ba mu set ñu jenc araam nañ fi ne nii da gis araam na góor di seq jigéen ju ko lewul araam na araam na nga di ko jege araam na waaye fi na nii tem bu bëri na célibataire bu xamul jigéen waaw néew na célibataire bu bu xamul jigéen néew na néew na sali bu jigéen bu xamul góor néew na nekk na réew mi yàqu na buñ demee ba boo nekk ak jigéen boo ah boo boo dajeek moom ñaari yoon fóonoo ko mu ne du góor bàyyi ko fa dem nga xam ne adduna bi yàqu na kan. ku jigéen gi moo naan du góor waaw moo du góor. la hawla wala demee ba adduna toll fii yàqu na. buñ demee kan ba ñaari nit bu ñuy génn ci waxin góor ak jigéen di génn te góor gi ci boppam bu ko woowee ñaari yoon RV yi mu bañ mu ba ko. adduna yàqu bu buñ demee ba ndaw si bu nekk jigéen di ñu gise ñaari yoon fu wéet fóonu ko mu ne du góor adduna yàqu na koy bàyyi sax far wuti ñuy defi loolu oustaz dafa am waaye jukko yi yàlla ci yàlla musal dafa ñaaw na dafa am sartu génn dafa ñaaw sartu génn daa am oustaz xam nga sartu génn waaw sartu génn am na waa kay ma wax ma nag ci côté be ah <laughs> seen sartu génn yéen kon leeru ma waaw sàrt dafa bokk ci charte génn oustaz oustaz oustaz dafa bokk ci charte génn muy communication moo yor relation voilà kulli relation boo gis communication moo ko yor te waxtaan bu amul réeroo day daal di am moo tax foog ñu daal di waxtaan ci coro yi parce que pourquoi parce que da ngay xam nit ki bala ngaa dugg ci moom bu fekkee da nga koy labat wala bu fekkee da nga ko bëgg di takk à l'avenir am na ñu bëgg a takk mais yoroguñu mais lu ñuy def mooy xale bu jigéen bi maa ngi nekk ak moom bëgguma comme que bëgguma mu rëcc ma nag il va falloir qu'on communique ensemble comme ça au moins mu mën a xam man li ma bëgg ak li ma bañ loolu mooy communication nga kan rafet jikko loolu bokk ci de thème bi ñu indi thème bi rafet jikko bii ma gis nii bii ci écran bi hmm. bokk ci communiquer une heure ba quatre heures du matin cinq heures du loolu bu dafa am ñaari célibataires yu tëdd hmm. bu kenn ki yeewoo ñëw ne ma cëm diw moo yàq sama nalaw yëpp day fontu waay jigéen rek ba 5 heures du matin mu ngi communiqué. waaw loolu bëri nañ ko. ba jàkka ji nodd mu ne ko waaw jàkka ji nodd ne nag damay tëdd damay xëy fay téléphone am du julli sax tëdd na la. kan loolu baaxul. loolu bari na bu la neexee nga ne communiqué moo koy wax mais na gàtt kan. wax leen. waaw ka wax faratu coupé. Moussa farata guddul. wax farata rek coupé. mais farata guddul wax farata yàggul. nga wax farata booy salaamaaleykum da naka njaboot gi jeex na. am na yenn yoo xam ne bàkkaar day déedéet mën na am yeneen farata yu ngeen waxtaane comme yan muy yu gàtt waaw xadis baax na bu dee xadis yuy wax demal julli jeeg yemal nangam yooyu. oustaz mais oustaz loolu conseil la comme par exemple tey jii ngay wax ak di ko conseil ci àdduna nga koy xelal. mais kan xam nga lu xaram mooy tëdd guddi di ku ci waxu ndaw si am na ñoo xam ne ndaw si am na lu may wax da leen di daaneel daaneel. waaw Oussa xanaa doo service client. comme ça. ah <laughs> service client salaamaaleykum. waaw. xale jigéen ñi wuri ci service client bi yooyu seen baat neexul. non man sentiruma loolu. yëguma sax li li li mel. Oustaz. kaw bi service client boo demee mu kii muy muy moom mun ngaa coupé nekk leneen. Oustaz. loo mais li may wax man mooy. jigéen dafa bokk ci. dama ne la communication dafa jigéen yaa Oustaz. baat gu neex dañ ko taamu ci jigéen waaye di wax comme góor dafay am différence jigéen dafa war a am nu mu war a waxe góor am nu mu war a waxe laa yaa yaa ngi wax dëgg yaa ngi wax dëgg de góor day góor góor dafay góore jigéen day jigéene mais ngay wax ak jigéen nga yaakaar sa petit frère ngay xawal sa grand frère yaa ngi wax dëgg de góor day góor jigéen day jigéene waaye ba pare nag nga may moom wax li sariya wax <laughs> moom moom maa ngi fi moom sariya ba fi teg lu coono di bëri bëri moom dinaa wax li nga xam ne tabaarkalla moom la ci yàlla wax allez-y oustaz yow fi ne nii yaa ngi wax jigéen ju neex jigéen ju neex baat dëgg la mhm. jigéen baatam day neex wallaahi mu di ko jubal muy jëm ci noppi jëkkëram dëgg fa yàlla góor day góore mhm. muy neexal muy jëm ci mhm. jabaram ah waaye ku la lewul nga di ko jaay baat bu neex waxtaan wu neex ba mu daanu bàkkaar day day dal waaw kan li may wax am na de. xam naa li ma wax. Ah, li may wax man li may wax xam nga ko nga li may wax. xam naa li nga am na jigéen ñoo xam ne dañuy waxtaanee góor rek waxtaan ba quatre di ma matin ngir daaneel ko nga gis góor gi wax ak jigéen naan ko daaneel ma. <laughs> ci réew mi lañ dëkk de kan. ah loolu nag xeetu xeetu foo rek. xeetu fool yàlla ñu yàlla dimbali rek ñu ñëw incha allah <laughs> ñu nekk na. <laughs> <laughs> mais nag Oustaz lenn laa bëgg ñu d'accord ci ñu ñëpp muy des fois ñu oyofal mbir mi. ah na de. non parce que parce que bu ñu waxee communication. yàlla nee na jafeel damay jàppandal. te yàlla lépp lu mu jàppandal la. Oustaz mbaa xam nga diine bu addiinu yusru mbaa xam nga diine bu diisee rek nekkatul diine. de li ma wax addiinu yusru njol màkk ne diine jàppandal la. Mhm. diine woyofal la. te alxuraan def ne bu yàlla def ne bu leen jàpp damay ñëw taral ba tar damay ñëw jàppandal. inna maal usran yusran mhm. ñu bàyyi ko xel. Mhm. waaye nag lépp loo ci gis ci côté boobu. bàyyi xel na nag bépp jafe-jafe bépp jafe-jafe boo ci yaakaar ne nangam fii am na fii dem nga feneen fekk ñu yombalaloo ko ba mu yomb. waaw mais nag oustaz loolu charia la. waaw oustaz mais bul léegi moom moo ne man maa leen bind bind ku ñi jigéen ñi ngir ngeen bëggante. kay oustaz xam nga keroog wax nga ko fi waaw waaw nga gis xale bu mel ni ma aji aji aji mii ah? nga gis ko bëgg ko. aji pareegul da nga koy xaar. Oustaz loolu. noo koy xaaree une heure du matin ba une heure du matin waxtaan. waaw Oustaz lépp ci xam bi la rek. di bànneexu ci kàddu ndaw si. Oustaz mën ngaa bañ a bànneexu ci kàddu ci kàddu sax. Ah, ah, ah. mais bu fekkee ne par exemple. moom mii ni muy waxee dafa ne bu fekkee aji ni muy waxee dafa ne téléphone du ma ko woo. ah ah mhm. Mhm. <laughs> nga gis ci góor ñoo xam ne seq ñoo góor di ndaw si leen. mais dinañu ko woo sax bànne ci kàddoom seq ñoog moom leen. waaw loolu mais dinañu ko woo rek di waxtaan jël taan ak. nemmeeku la rek di nemmeeku wuñ dara di bànneeku ci kàddoom rek am ñoo xam ne nag jigéen ñi li ñuy wax kii sama góor la ku jigéen ki day naan kii sama jigéen la doon loolu dong la. ay xaritu góor jigéen. Oussa bokk na ci jikko bu rafet ma laaj la. xaritu góor jigéen. Oussa bokk na ci jikko bu rafet. ah baax na waaw ñëwal. <laughs> bokk na ci jikko bu rafet. xaritu góor ak jigéen. waaw xaar mu ñëw. Ah, baax na. <laughs> oustaz bay waxtaan nag bokk na ci ci jikko bu rafet góor gis lu mu bëgg dem ca waaw ah, dem takk loolu jikkoy góor la jikko jikko ju rafet ak ngóog jikko ju rafet ak ngóog dem takk nag laa wax de waaw dem takk yi waaw ah, waaw dem doon takkee léegi ak léegi bokkul de léegi dafa may any time dafa am ay un million yi trente yi ngay dégg doxaan quarante ans waaw du quarante ans kay da ngay màgget mais nag wax dëgg fa yàlla doxaan quatre ans kay maa ngi jur naan quarante ans quatre ans waaw mais loolu yëpp ci xamante gi la ah, xaraam yàlla ñu yàlla musal ci loolu. xalaam na kon nag ñoo ngi ci rafet jikko. Mhm. rafet jikko nag tabaarakallaahu gis nga téere bi Mustafal Muraad lépp ci rafet jikko la ko teg. Mhm. noonu la ko tabaarakallaahu Abdourahman euh, euh, lu mu tudd sax Abdou Wahab Ash-Sha'rani mi bind Kashful Qumma. Mhm. boo demee noonu la ko wutalee paas dafay nettali ne. Luqmaan ci boppam Luqmaan. yaa dafa dafa daje doom ji doom ji ne ko nag baay maa ngi lay laaj eh, ayul xisaale xayrul insaan ana ban jukku moo gën ci julit ba léegi de ban jukku moo gën ci nit ñi doomu aadama war ko jukki woo mu ne ko ab diin mooy jukku diine fexe ba am diine moo gën am diine doom ji ne ko ah ah diine da baax na moom papa tabaarakallah waaye nag ida kunta isnatayni bu dee nag da nga ma koy defal ñaar mu ne ko ak diini wal maal mu ne ko bu dee ñaar nag laa lay jox mm-hmm. jëlal diine mm-hmm. ak alal mm-hmm. alal joo xam ne da nga koy dépassé ci lu neex yàlla daa gën parce que kan alal dara gënu ko dara it gënu ko yiis alal du dara waaye darul mel ni moom lu muy réglé kenn du ko réglé. waaye lu muy technique nag tabaarakallaahu. waaw mais lu muy réglé. mais lu mu technique mën na koo teg. tabaarakallah alal daal alal daal alal la. alal kon nag mu ne ko ñaareel bi. gis nga romb na yu bëree bëri. ne ko nag ab diini wal maal. bi ci jiitu mooy diine ak alal joo xam ne da koy dépassé ci sharia ak say bëgg-bëgg yu neex yàlla. Mm-hmm. mu ne ko nag idda kuntu salaasa bu dee da koy def ñett dolli ma si dini. Mm-hmm. mu ne ko ab diini wal maal wal alal kersa kersa nag moom néew na fi na nii moom boo doon définir kerse tey nan nga koy kersa moom tabaarakallaahu lu néew na fi mu ne nii ci réew mi mm-hmm. parce que te maanaam thème bii ñu jëm mm-hmm. dafa ëmb yu bëree bëri kan mm-hmm. parce que bu dee boo koy jël di nga dem ba mu yàgg nga dugg ci alxelmu alxayaawu listiqaam sidduqu yii yëpp tabaarakallaahu bu ne mën nga koo jël te boo ci jël du taxaw léegi nag kerse nag moom alxayaawu Euh, nu ko tabaarakallaahu borom xam-xam yi waxee mm-hmm. yaatu mm-hmm. muy xayaa ci boppam mm-hmm. euh, dañ na istiqaaqu min alxayaati borom xam-xam yi dañ na alxayaa euh, istiqaaqu min alxayaati dañ ko xottee ci dund bi maanaam li Moustapha al Mourad wax ne xayaat na nabaad gàncax yi dund yi ñuy dund tabaarakallaahu dund gi addu adduna bi di dund suuf si ci boppam tabaarakallaahu adduna ak àllaaxira nee na dund gu ñuy dund ci lañ xottee alxayaa macha allah maanaam alxayaa mustaqaqun min alxayaat mu ngi jógee ci ah, alxayaat buy firi dund mhm. ñu ne ko Moustapha al Mourad loo tax nga wax loolu mhm. mu ne maanaam alxayaa muy dund doomu aadama kersa boo demee ba amatoo ko nee na kël mayiti Mm-hmm. boo demee ba amatoo kersa yaag néew yéen a yem. ñàkk kersa baaxul kan. macha allah yal nañ ci yàlla musal. amiin le temps le temps le temps qu'on installe Adji vite fait. donc aji ah. le temps ngay installé wu oustaz bu fekkee ne par exemple jikko bu rafet la ñuy daal di àddu kon bu fekkee Allah subhanahu wa taala jikko la gën a daanaka bon bokk na ci li mu gën a joxoñ tey oustaz kon mooy defar lépp kon kon ñuy wax yàlla xol lay fay kon ñooñ da leen di may raison. waaw xam nga nag rasulullah comme par exemple nit du julli du boor ah, du sarax du ah, dara si laa ñëw mukk parce am na kati parce que am na kati buur yi ñi ma xam hmm. man sama xol dafa rafet du julli yàlla xol lay fay waaw képp ku ko def boo dewee yàlla duma la xol bu ñaaw a ngi noonu xol bu yées a ngi noonu kooku xol bu bon la yor lu tax xol bu dul julli foo ko fekk borom xol ba daa muuru leer new ci xol bu bon la yor bu mu jàpp ne ay xolam daa baax de mu naan man sama xol dafa rafet Euh, yàlla xol lay fay déedéet mukk xol bu rafet bu nekkee ci yow jaamu yàlla yaa ci jiitu ñëpp waaye xol bu bon bu nekkee ci yow na dangay ngay toog di teg la say tànk naan yàlla julli xol lay fay te doo julli waaw loolu dara gën a ko yées di di di di di yooyu yëpp nag sa xol a rek saytaane jàpp rek waaye bu saytaane diñee ci yow sa xol am leer force da ngay julli ci ndax njol màkk moo ne nekk na ci jëm suux mooy xol bu wéree lépp wér bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon bu wéree nag ci yow mooy tax sa cër yi mënoon nangu julli kat isa salaha salaha du kullu la wax kon wane na nag du xol kese am na des waaye mu jiital xol ne bu baaxee lépp mooy baax bu bonee nag lépp bon kan nga yëg ne boo yoree sa xol di woote ne sa xol baax na te doo julli sa xol daa bon waaye soxol bu baaxee yaay jiitu ci julli soxol bu baaxee mhm. yaay jiitu ci julli d'accord gis nga xool xool xaddis bi rek mhm. maanaam jàngatal xaddis bi mhm. njol màkk def na nekk na ci jëmm mutlaqatun suux bu wiiree lépp wiir kon nag toftal ne ne am na leneen lu des am na yeneen yu des parce que lépp la wax alkullu am na yu des léegi nag mu ne xol bu baaxe lépp baax dina tax nga mën a julli say cër mën a nangu sa làmm bi nga ci wax lu baax doo jëw doo xaste doo yàq der fekk xol ba baax na waaye sa xol bu bonee nag moom da ngay taxaw naan sama xol baax na waaw kaa bi nag te doo julli mais kaa bi mënuñ ko oyofal tuuti di jëw kaa kaa mais kaa yàllaa ko xaraamal yàlla moo ko xaraamal bokkul ci jukko yi rafet ci jukko yi ñaaw yi la kaakat yi dafa xaraam yàlla nañ ci yàlla musal nga parce que njool nàkk nee na ba may def laytu isra wal mihraj daje naag jibril mhm. maanaam euh, gis ñu ñu yàlla di lakk ñenn jigéen lakk yu métti ñoo xam ne dañ leen préparé lakk-lakk yu métti ne ko waaw jibril laaj ko eh, laaj na ko ay question yu bëri moom ñentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba jibril la ko waaw ñii demoom mooy jigéen ñi nga xam ne danañu bëri safara te du leen yóbbu safara mooy kaa jëw rek jëw <coughs> bokk na ci leen yóbbu safara maa ngi leen wax nag tabaarakallah di doon luxmaan di dénk doom ji muy almaal voilà mu ne ko boo ko defee ñaar waaw ñuy li ni aji allez mu ne ko benn mu ne ko diine mhm. mu ne ko def ko ñaaw mu ne ko diine ak alal mhm. ne ko def ko ñett mu ne ko diine almaal wal xayaat mhm. mu ne ko nag léegi ida kuntu arba al bu dee nag dama koy def ak ñeent mu ne ko diine alal kersa euh, rafet jikko muy ñeent yi muy ñeent mu ne ko nag bu dee da nga bëgg daytal jëlal diine mhm. jël alal mhm. euh, jël kersa jël rafet jikko mhm. mu ne ko nag dolli ma beneen muy six muy juróom mu ne ko fa isa kuntul xamsa jëlal dine alal kersa rafet jikko tabe mu ne ko ah isa kuntul sittan bu dee nag danga may dolli juróom benn mu ne ko fa laa yem mu ne ko lu tax mu ne ko de isa tama al xisaalul xamsa fa huwa naqiyun taqiyun juróom yi boo ko boolee da ngay yegg ci sell yegg ci ragal yàlla yàlla mën a méngoo say mbir wallaahu waliyu wa mina saytaani bari boobaa saytaane day denc yow yàlla méngoog say mbir boo doxee ci juróom yi yàlla ci yàlla saxal amiin yaa rab diine alal xayaa saqa xasnul mm. xulq jërëjëf tabaarakallah yàlla nañ ko yàlla merci beaucoup yaa oustaz alors ñoo ngi ci deuxième partie de l'émission comme d'habitude oh, ça fait longtemps quand même defuñu comme ni mm, mel mm, deuxième partie alors Adji Ratou maa ngi lay nuyu di nuyu suñuy internautes ak aussi suñu ay téléspectateurs di leen wax ni namoon nañ leen namoon nañ leen loolu ci seen biir émission yoor-yoor comme niñ koy defee rek à chaque fois li nga xamante ni mooy question yi ngeen di poser ci internet bi ñu koy jox oustaz mu koy tontu directement. tey nag Thierno dañoo am ay questions yu bëree bari mais xam naa ni dañ koy tënk rek comme ni ñuy defee à chaque fois thème bi ngeen andi moom defe naa ni intéressé na téléspectateurs yi loolu ba tax ñoo ngi posé tey moom seede ay questions macha allah. d' accord von vont sûrement poser des questions. Mhm. comme rappel aussi nous sommes en direct sur YouTube. sur Facebook mais aussi sur TikTok waaye duñ ci daal di wéet ah. ndax mhm. oustaz à chaque fois am na ñoo xamante ne dañuy bëgg a de des questions ko ci aji mais temps yi aji. Mhm. waa matinal ñoo la sàcc. Oustaz. ay hmm. aji dañ ko kidnappé. ah jaaduwul de. ay aji dañ ko kidnappé aji. boole ñu ci boole ñu ci. ay aji ñu ñun la woon démb. xale jigéen ñi nga xamante ne da nga leen trahir. maa maa maa woon depuis démb. ba ah. aji. dëgg la de. <laughs> alors Adji vite fait euh, je, je pense que vous avez déjà envoyé vos questions la régie. si alors si c'est bon. d'accord ñu doore ko rek ak première question bi moom nag moo ngi posé question oustaz mu ne d'abord nan la ñuy xamee lan mooy définition jikko oustaz. oustaz kii lu mu laaj mooy. lan mooy jikko lan mooy jikko. waaw defe naa su ma juumul sax ñëw naa ci ci thème bi. Mhm. mooy tabaarakallaahu man aqul ulama wa hikmati fi husnul xulqi borom xam-xam bi ci boppam waaye tabaarakallaahu ñi nga xam ne am na xikma lu ñu wax ne mooy jikko ji rafet fa maddarul xayri mooy fi la fekk moom sa sa làmmiñ yiw nga ci wax doo jëf lu dul yiw déedéet waaye nag wa sharaf ak teddange yëpp nag tabaarakallaahu ay jukko yu rafet la war rifatul wa quwwatu fi dunya wal akhirati ala asl akhlaq mm-hmm. nee na lii mooy màndarga yi nga xam ne mooy rafet jukko mm-hmm. beneen bi ci bokk mu ne rafet jukko bu nekkee ci yow jiw ci boppam day dégagé wu ci yow la wax mm-hmm. nee na rafet jukko bu nekkee ci yow dafay dëñ ci yow nee na rafet jukko bu nekkee ci yow en sa secret en sa secret ci boppam xam nga ko kan xam na mooy en sa secret mm. agent secret xam nañ ko kay ah nee na dafay dëñ ci yow nee na rafet yi tabaarakallaahu bu nekkee ci yow da nekk kuy toroxlu maanaam bi maanaam tawat daa gis nga nee tamit wa in qaala almuhu amluhu kii tamit dafa waxoon ne ibnu ata dafa waxoon ne maa ngi lay jox nag alaamatul xusnul xulqi mandargay rafet jukk ñu ko ban ban la mu ne mandarga yi ma tudd nag daf lay yëkkati ci ay daraja parce que maa irtifaa min irtifaa ila xusnul xulqi amul nit daraja ju mu yéeg mm-hmm. yéeg ci beneen daraja lu dul rafet jukk moo ko fi yóbbu macha allah daraja yu yàlla joxe nag laa wax macha allah mm-hmm. amul bu ci mën a doon laa tabaarakallaa rafet jukk moo la ci moo la ci moo la ci yóbbu d'accord mais est-ce que léegi nag imaamu Junayd di dafa waxoon ne mais est-ce que du jikko la wax rafet jikko la wax non par exemple mu ne euh, lan mooy jikko. Mm-hmm. jikko jikko kese. définition jikko définition jikko. waa de waa définition. xam nga définition du rafet jikko wala du ñaaw jikko affaire yooyu. je pense que c'est ça la question si lan mooy jikko la lan mooy jikko mhm. comme comme li ñuy wax daal jikko dalay dalay dalay xaar mhm. deux minutes trois minutes je pas am na ñu bari di wax loolu ah naan jikko dalay xaar ci man de man de minutes deux minutes après daal di dikk mhm. c'est ça man daal li may wax man mooy oustaz lan mooy jikko dama jàpp ne dafa bëgg a wax ne lan mooy maanaam jukko carrément ci yàlla wax Mhm. moo tax ma doon ñëw tabaarakallaahu ci màndarga yi nga xam ne. Mhm. bu nekkee ci yow rek jikko ju baax nekk na ci yow. parce que boo ñëwee rek tudd jikko. Mhm. Euh, mubtada la bu amul xabar. faaw nag tabaarakallaahu ñu xam jikko moom. moom mooy lan ju rafet wala ju ñaaw lay laaj. wala jukko ji nga xam ne moom tabaarakallaahu moom la yàlla bëgg. waaye yàlla nag moom jukko ji mu bëgg. bokk na ci mooy. baax doo jëw mhm. alxilmu lewet mhm. toroxlu mhm. tabe rafet jikko huwa ikmalu iman nee na lii mooy matal ngëm yàlla d'accord d'accord oustaz alors la deuxième question vite fait s'il vous plaît bi mu mel ni sax dafay wuyu réponse bi nga xamante ne jox na ko muy deuxième question bi mu ne oustaz nan la ñuy ràññee boroom jikko ju rafet ba je pense que c'est déjà mooy moom mooy moom mooy. même question la rek je pense question bi la. li ñuy li li nga lim fi mooy li ma wax mhm. nii rek léegi tabaarakallaa lii daal ci kum nekk. Mhm. jukkoom rafet na. Mhm. fi léegi sa làmmiñ bii téye nga ko ci nit sa jukku rafet na muy alfam. bu dee nag sa pii fi léegi téye ko ba jox ko sa jëkkër bu dee jëkkër mu jox ko jabaram jukkoom rafet na. alxil mu tamit lewet. parce que lewet détaillé na ko mandar gay min awliya as-salihin muy oyof ku oyof daa maanaam lewet lewet la nooy neex a jëflanteeg nit ñi réyu mhm. ñëw di woo leen di yëkkati yëkkatiku man pour la nit ñi di yëkkatiku yëkkatiku di jaay rëy te bàyyi woo xam ne bis dana jot ay nit ñoo lay ngàddu rofa biir bàmmeel dafa tey mais dañuy fàttaliku loolu boo demee ca maqaama samar xëndi istabdaxda fi bëdi asfari xandi wa qasadu bihi samar xandi wa kunti yawma isin qawmi sataati ma ngay dem ba mu mu ne daa dugg digg waa ji di di di di di xutba xandallaahi mu wax diggal a muudil asma al muudil alay alwaasal atayi almado liisi la waay malikul umami wa musawrimami wa mulikal aadi wal irami adraka kulli shari alma wa waasa kulli mushari alma mu ngi dem ba mu yàgg mu ne imalu rihimakullah wa amalu sula wa akdo lima adikum kadi asay wardo awaakum rida aday mu dem ba mu yàgg nag mu ne xoolal eh, lenn maa ngi leen koy dénk bàyyi leen fàttaliku leen wasurul xemaama ërbëtiki leen seen xel mi ngeen fàttaliku huul ihwaal yi ërbëtikuwaay mbir yi lu la yàlla mus a jox day changé billaahi bu dee pouvoir di ko ñàkk bu dee yàlla daf la jox bakkan sax da koy nangu te bakkan a gën a réy luy yàlla di joxe mu ne ko lu tee nga sóoraale ko lu tee nga bàyyi xel ne wér bu ñëwee feebar day ñëw lu tee nga fàttaliku nag dee day ñëw lu la yàlla mënta jox bis dana jot dee am moo tax mu ne waskurul himaam bi maanaa bi maanaa imaama bi maanaa al mawtu nañ koy fàttaliku incha allah loolu jar a bàyyi xel la d'accord di fàttaliku bàmmeel mm. fàttali waaye wéetaayu bàmmeel ka ñu koy dégg laajug malaaka yi ni mu taree loolu nañ koy bàyyi xel bu loolu amee ci yow rek doo rëy rëyul mm-hmm. nga lewet nooy ci mandargay tabaarakallaa ku jukkoom baax la mm-hmm. beneen bi tamit mooy tabe lu la yàlla may dee ko jox nit ñi Mhm. tabe yow nag ku tabe ga mhm. yal na yàlla yokk tabe gi mhm. tabe daa baax de dara gënul tabe ñu bàyyi ko xel bu baax a baax bokk na ci tamit damay rafet dikko moo ëmb lépp ñu ne ko lan mu ne huwa akmalul iman lii mooy matal ngëm yàlla rafet jikko yàlla nañ ci yàlla saxal amiin yaa rabbal alamin jaahi rasulullah alors la troisième et la dernière question d'accord ñu ñëw ci euh, troisième euh, troisième question bi moom nag nee na oustaz ki nga xamante ne da ngeen di jëflante te jikkoom dalaa soof maanaam. ki ngay jëflanteeg nit te jikkoom moom. neexul dalaa soof ah moom de xanaa wax ko ko rek mu jéem a changé moom. <laughs> wax ko ko rek am na ñoo xam nag seen jikkoom daa papa papa. Mm-hmm. maanaam xanaa wax ko ko rek mu jéem a changé moom. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dëgg la da ngay jëflanteeg ñoom seen. jikko oh, ñaaw lool wax dëgg fa jikko ñu yor jikko jikko woo jikko jubal oh. jikko kàkk waaye tabaarakallaa lu njool màkk waxoon ne bu baax nekkee ceew xol bu rafet nekk ceew mhm. ngay ànd ak ku bon ko koo orienté moom la fekk ci ci lu baaxee tabaarakallaahu jéem a jëflante ak moom. mais est-ce que boo leen di orienté nga leen di orienté nga gën leen a dëng fekk ci leen ci li ñu ne. <laughs> xam nga dañu benn euh, benn sa xaw ma benn pompiteer mën naa yàq saaku pompiteer. dëgg la benn pompiteer bu nëb. la yàq saaku pompiteer bu nëb dëgg la waaye daal moom daal li am mooy. Mhm. fexeel ba yow bu lay wan li bon nga di ko waat lu baax. Mhm. muy lay wan lu bon nga di ko wan lu baax. dina soppeeku kan. soppeeku am ñoo xam dañoo dër. Ah, am na ñu dëgër am na ñu dëgër bopp rek. mais téye ko fa rek am na dër kiis bu lay hmm. wan lu baax. waaye tabaarakallaahu booy ànd ak nit nit koo xam ne jukkoom baaxul bu ci ànd ak moom tabaarakallaahu ci lu neexul yàlla. dëgg la nangoo toog ak moom mukk muy def lu xaraam nga ci toog ak moom. incha allah yonent tere nañ ñuy toogal naafiq illaa bi dara. du hmm. dul lor boo demee ci mu watta imam Malik. Hmm. tabaarakallaahu wax na fa li ni mel. mooy jullit warul toog ak naafiq lu dul lor dong mooy am mooy tax mu toog ak moom lool. d'accord ay tuxkat ak yooyu noonu yëpp mu ne tabaarakallaahu bàyyi ko xel. d'accord bu koy def bul toog ak moom bu paree nag mën ngeen toog waxtaan parce que loolu sax baaxul. parce que mën nga di ko def. loolu tabaarakallaahu mu dugg ci doomu aadama bi asma bi nekk problème am ci moom. Hmm. bu dee moom la am mu dugg. maanaam ñuy tux ci mbooloo. loolu mën na ko loolu mën na koo lool. boo fekkee ay nit di jëw jugal. bul ànd ak bul ànd ak kuy jëw de ngay toog muy jëw ngay déglu bu ko def. sinon da ngay mbakkaay. ah déedéet déedéet bu ko déglu. kuy wax mais mën nga ko bañ a déglu boo ci dugg daal. noon non da nga da nga dul toog ak moom kan. koo xam ne heure bu toogee di kan bul toog ak moom. koo xam ne heure bu toogee nga ànd ak moom dafay nekk ci lu neexul yàlla bul toog ak moom kan. d'accord li may wax ji di. d'accord li kese la. ndax maanaam kuy jëw looy looy dox di toog ak moom. Mhm. baax na. waroo toog ak moom moom loolu moom mooy farata ji. parce que ñoom mais attends am na ñoo xam ne par exemple dañuy toog ci ci mbooloo nit di wax ci nit mënuñoo jóg mais dañuy noppi lax dali sax mu ngi koy wax ne lor dong mooy tax nga toog moom lor bi xam nga mooy lan mhm. ngeen dajoo hôpital indi malaat mu indi malaat buy jëw mu ne mën nga koo toog déglu <laughs> wala mu ne ngeen dugg bokk fi ngeen jëm te buy jëw mënoo ci dara mën déglu ko waaye yaa ngi toog ci place mën nga déplacé wu buy jëw jugal dem ñu ko déglu bañ koy dégloo tax muy jëw bi yëgaloo ne nit buy wax te naan un rek te wala dégluwoo Euh, waxoo du wax yaa ngi naan amoo rek yaa ngi naan amoo rek non day continuer te continuer bi muy continuer yaa ngi koy jox nopp fi léegi yaa ngi koy jox nopp moom mi ngi bëgg jëw moom mhm. feebaru jëw bi dina ko pousse muy gën a continuer mhm. continuer boobu nag yaa ngi koy may muy déglu déglu boobu nag bàkkaar la ceew moo tax ñu ne bul toog naa fekk da jóg ba ko fa d'accord mm. d'accord Euh, wala nga def comme ABC. alors euh, Adji. c'est mhm. c'était la dernière question no si am nañ fi quatrième tey li ñu fi am ci question bari na mais dañ koy yemale rek ci quatrième question bi waaw beneen ñu waaw parce que bii dañ koy defaat ñu continuer ko ah, parce que biram tamit moom moo ngi doon participer waale am na fi ay question mais xam naa après bu continuer rek ñu poser question yooyu moom nag nee na oustaz nan la ñuy ràññee jikko ak iman ci nit jikko ak imaam. Mhm. waa moom mooy moom mooy mbir mi rek ndax defe naa tey moom. tey moom daanaka question boo xoolee boo xoolee bu première ba. première question bi ba léegi bi ak ba tey mooy ñëwaat dugg ci bi. Mhm. Mhm. dugg ci troisième dugg ci quatrième bi. mu neex nag mooy fu mu fu mu daa fu te nag xoolal kii wax kan. fa lay daanalee wax ji ak mënul imaam. dafa wax ne jukko yi defee ci boppam mooy matal ngëm yàlla. kii nag moom ñëw ñëw daanalee question tey bi. ak iman lan mooy différence. entre jikko entre jikko ak iman ak iman tabaarakallaahu mhm. xam nga lu mbax mhm. nee na loolu mooy matal ngëm yàlla. Mhm. jikko ji rafet loolu maanaam tabaarakallaahu ci doomu aadama la jëf ji muy jëflante gi muy jëflante fas ko ci xolam nag di ko jëflante waaye imaam nag mooy loo xam ne da nga koy gëm gëm yàlla gëm yontu yàlla Muhammad hmm. tudd ko ci làmmiñ di ko waxee di ko jëfee di julleeg oor ak ci aju hmm. di ko doxee noonu moom la ñu woowee imaan rafet jukko nag moom mu ne huwa akmalul imaan mooy lii ñëw di matal tabaarakallaah ngëm yàlla temps wa jeex na macha allah temps jeex na tàggatool aji d'accord tey nag dama bëgg a souhaiter sama xarit. ba ñun ñëpp ay souhaiter tey ñëpp am lu ñuy souhaiter. waaw tey waaw tey moom ñëpp am ñu ñuy souhaiter comme ni nga ko waxee rek Thierno. Hmm. juste di souhaiter Mariam happy birthday suñu maquilleuse bu ñaawul boobu bu ñu rafetee ba ngeen mën ñu gis ci écran bi moom moo tax donc ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér yàlla mottali projet yi nga xamante ni am na ko wante itam di nuyu Penda Sow oh depuis France moom moom nee dafa daf maa mere te ne defe naa ne nag mag du mere rakkam donc. nag maa koy nuyu bu baax a baax dina ma jaral sax dagg biyee ñëw ba foofu ah. baalu ko àq di leen jox nag dig daje ba <laughs> lundi incha allah waaw kay dinaa dem nag baalu ji ko ci jàmm <laughs> xam naa ci weekend bi laay dem. ah ci waat lundi incha allah baax di leen jox dig dig daje ba lundi incha allah et puis di leen souhaiter bon weekend. merci beaucoup à toi aussi bon weekend. Oustaz ah bon weekend bon bon weekend ngeen wax. Oustaz dama lay wax dama dama dama indi woon dama indi woon fii. Euh, ay ay jeu mallette football PS ma jàpp Matar xam nga set nga moo xon danga may doon. waaw hmm. Matar gaañ naa ko. Matar mi Matar mi. déedéet Matar war a ko dóor Matar moom sama xarit la waaye nag baax na ci moom. tabaarakallah macha allah ñu ñu kontaan yi bëgg ñaan yàlla yàlla yàlla defal mbir yi. ki ngay sooyee tey tabaarakallah ñi ngeen ñi ngeen di tey ñëpp xamu na ngeen koy waxee noonu. happy birthday man ki may souhaité Awa Sow la tudd waaw Awa Sow ñoom ñëpp tabarakallah waaye na kan mhm. damaa bëgg na ñu souhaité kii ndax moom du du tarde émission bi macha allah sunu xarit la mhm. Maodo Sall di kenn ci ñun Maodo Sall bu Pape Maodo Sida Baax borom le 10 octobre Maodo ñu ngi lay wax happy birthday Maodo ñu ngi lay wax joyeux anniversaire dundal yàlla yokk say fan moom daa gën daa gën ci ñun mm-hmm. daa baax loolu tabaarakallaa moo doon ko tuddee nag waaye Maodo bu jeunesse maam Maodo Maodo bu Cheikh Alhaji Malick baax loolu tedd moom lépp lu ñuy def bu manqué rek dañuy yëg ne manqué na ci waaye Maodo bu ñëwee rek tabaarakallaa ñëppoy firi mën a kontaan ndax neex gum neex mm-hmm. ñëpp bëgg ko wax dëgg fa yàlla ci groupe bi Maodo ñu ngi lay wax tabaarakallaa ko dundal yal na yàlla guddal sa fan yokk say mbir moom lu ne séq nenu ko lu tax ñu séq loolu nag mooy tabaarakallaa mbaax gi mu baax moo tax ñu may ko li ne ci ñun bu ko lu ne lu ne dañu koy yekk waaye ñoo xam ne mbaa mbaaxam dong tabarakallahu moo tax ñu may ko loolu ci moom moo tax yàlla yàlla guddal sa fan yokk sa wërsëg yaa xam lépp loo bëgg yàlla nañ ko yàlla yàlla ko yàlla defal dundal santa sa <laughs> dunas xaati buzz moom jërëjëf jërëjëf Maodo en tout cas de euh, de la part de toute parce que déjà ci ñun la bokk mhm. koo xamante ne du tardé du tardé du tardé alors Maodo ñu ngi lay ñaanal jàmm di ñaanal képp koo xamante ne da ngay anniversaire naka tey ji Marème fii ci kër gi moom laqal nañ ko lool lool lool saa su ne góor ñi bu ñu belleeg jigéen ñi bu ñu bellee moom moo fa daal di jaar comme Marème happy birthday a toi di profité waale di souhaiter happy birthday à Awa Sow ki nga xamante ne ba tey ci njabootu ami la daal di la daal di la daal di bokk ñu ngi koy ñaanal jàmm ci yow yaa xam loo bëgg yàlla na ko yàlla may vraiment ku baax nga souriante et tout et cetera balaa loola tamit ñu ngi leen di jox dig daje incha allah lundi bu soobee yàlla ci thème bii ñu biisaat ko ñu ngi nuyu képp koo xamante ne daanaka jàppoon nga ci mbir mi ba mu daal di yemb muy ABC ak Matar bi féete ci son bi salaamualeykum wa rahmatullah